waaw tey euh, li ñu dajale fii mu di dialogue spatial afriken africaine euh, union européenne lu am solo la parce que xam nga ne àddina bi léegi euh, science innovation xam-xam moo ko moo ko yor ak information surtout loolu mooy guider sécurité loolu mooy guider réchauffement climatique loolu mooy guider njàng mi mooy génne wér-gi-yaram mooy gide sax suñu waxtaan maak yow ndax téléphone yi léegi foo nekk xam nañ la yaay kan looy def foo tollu danger ban nga nekk environnement ban nga nekk xam nga aussi problème mu ndox mi tey ni mu demee ak tàngaay bi gis nga ko euh, problème mu mbay mi problème mu yëpp daal dafa basé wu ci information te information boobu ci satellite la nekk tubaab yi dañuy wax ne ku moom asamaan si yaay contrôler suuf si te nag Afrique dafa sooxe foofu Afrique nekk fa woon ñu ngi utiliser lépp li xew ci àddina waaye ay jàmbur ko yor di ñu ko jox nu mu leen neexe nu ñu ko ñëwee ñu jëlee ko noonu léegi nag euh, li ñu bëgg moo di nu ñu xool ba comme xam-xam yi am na euh, comme man ma nii am na comme aussi àddina bi ni ko sengoor waxe woon village planétaire la léegi nan lañ mën def ba Afrique euh, dem foofu di fekke di sos di nos ba pare solution yi indi loolu Afrique di ko xalaatal boppam par rapport à ses intérêts et ses problèmes ba nga xam ne nii dootuñu toog rek kenn mun ñu bett ah, te du ñu xam fu ñu jëm loolu nag dañ ci kontaan ah, di remercier président de la République ak gouvernement parce que agence sénégalaise d'études spatiales nga xam ne suñu xarit suñu mbokk suñu compatriote docteur Maram Kairé nga xam ni fierté mondiale la moo ko jiite gis nga tey ñii am xam-xam ci àddina bi yëpp ci wàllu woowu daje nañ fi loolu sagu Afrique la sagu Sénégal la e et et donc euh, loolu moo tax ñu ñëw pour bokk ci. pour l'Afrique de manière générale euh, mais lu nekk dafa am jot xam nga ñun bi ñuy am indépendance 1960 taloon nañu laneen lu dul naa dañuy dem ci jaww ji léegi la ñor Sénégal mooy 22e pays bu ubbi agence boo xam ne loolu rek la ko déjee euh, mais Sénégal moo moo mujj def loolu waaye dégg li mu wax ci at mi mu ko def. jéego yi ñu ci def ba gis nga fan yee lancé nañ premier satellite sénégalais xam nga loolu réew yi ko def ci Afrique barewul kon du rattrapage mais dafa ñor fi mu ñore mooy euh, faculté université yi nekk Sénégal muy faculté des sciences mu di waa ASECNA mu di le centre de suivi écologie nga xam ne ñu ngi surveiller affaires yi depuis longtemps mais aussi sunu diplomatie ak sunu partenariat avec l'Europe ñoo ngi am ASECNA fi xam nga navigation aérienne parce que loolu yëpp ci ci mbir mi la ñu ngi koy gérer dakaar am na ay centre ak ay compétence yoo xam ne ni ñi xamuñu ko waaye ñoom ñu ngi doon liggéey loolu bi mu ñoree nag le Sénégal ubbeeku taxaw moo tax àddina bi yëpp ma en particulier l'Europe et toute l'Afrique wóolu ko ñëw def lii parce que li ñu def juddu amagoo at ñu ñëwal la nii def dialogue pendant ñaari fan waa àddina yëpp toog di waxtaan di xool nu ñuy def pour jariñoo mbir yi mais nu ñuy jar pour nekk ci nu ñuy def surtout aussi pour que mu mën a développer euh, ci biir Sénégal ak ci biir Afrique je crois que loolu moo moo am solo euh, dafa jot fi mu nekk ñu contrôler information dafa jot ñu nekk fa fa ñuy xalaate information dafa jot ñu xam suñu ressources minérales yi nu mu toll dafa jot ñu xam bu dee taw nu muy demee dafa jot ñu xam fan lañ jëm ak réchauffement climatique même sunu pêcheurs yi nekk ci géej gi gaal yi taxawàllu dafa jot ñu mën a surveiller à tout moment kuy def lan ak foo nekk parce que loolu mooy mooy li nga xam ni mooy ñu kii mais surtout dafa jot foo nekk Sénégal nga mun a accéder ci am njàng mun a am xam-xam mun a ubbeeku et puis ak information yi nga xam ne yow yaa ngi koy véhiculer maa ngi koy véhiculer mi ngi ci téléphone yi mi ngi fépp ñu mën ko contrôler suñu bopp parce que ñi ngi koy jot mi ngi ci jaww ji mais élaboré wuñ ko structuré wuñ ko moomuñu ko dencuñu ko te loolu problème de souveraineté et de sécurité nationale la